bismillah salaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi dellusiwaat ak yéen ci suñuy jataay ci jataay laabirante yi nga xam ne ñu ngi koy siq ak yéen insha allahu taala tey ñu ngi bëgg a waxtaane li nga xam ne mooy tabaski di benn ci xew-xew yi nga xew-xew yi nga xam ne lislaam daf koo amee di sunna sunu maam ibrahima alayhi salaatu wasalaam ñu toll ci ay jamonoom ay fan yu néew dox suñu diggante ak moom ñu bëgg ci fàttalante ak yéen sun boroom subhaanahu wa taala doon na koo xam ne deful dara ci ak neen lépp lu mu def rekk am njàngale ma nga ci biir ak fàttali ma nga ci biir ak digle ma nga ci biir ak tere ma nga ci biir boroom xel yu xóot yi ñoom danañu ko mën a gas ba jot ko ngir jariñoo ko waaye sunu boroom deful dara ci ak neen buñ waxee ñun tabaski di feet goo xam ne feetuk jullit la di sunna suñ maam ibrahima alayhi salaatu wasalaam jullit ñi di ko def li ëpp ci nit ñi rekk ñoom lañuy gën a bàyyi xel mooy mbir yi ca kaw rek mooy la féete kaw rek mooy daal am nga ndigal moom daal yow nee nañ la rek xëyal daal nga dem daral nga wut gàtt boo xam ne bu baax lay doon soo dikkee nga am noo def ak moom mu mel ne daal yow ak noos rek mooy li nga gis moom nga teg sa bët nga xam ne jamaal ji rekk nga gis te xamu ne jamaal jooju jalaal ju tàng jër moom moo ko laloon jamaal la joo xam ne ci biir jalaal ci la juddoo kon war ngaa gën a xóotal sa gis-gis ak say xalaat ngir nga mën a romb rekk daal gàtt buñ tëral di ko rendi buñ noppee lekk ko mu daal di jeex déedéet mbir la yoo xam ne ëpp na loolu dafa fees dell ak njàngat mu la mën a delloo ci sa boroom subhaanahu wa taala xamal ne ak deele woon ak deele woon koo xam ne ci jëmmi doomu aadama la doon wàcc suñ boroom wëlbati ko wàccee ko ci gàtt bi ba noppi jox la ndigalul lekk ko moo tax ma ne la jëlaal la woon joo xam ne moo soppiku jamaal kon nga bàyyi ko xel bul gis rekk ak noos lekk naan bernde déedéet njàng mi ci nekk ëpp na loolu sun maam ibrahima xalilullah mooy koo xam ne góor yàlla gu baax la woon di yonentib sun boroom ci kaw suuf sun boroom tegoon ci moom ay natt yu baree baree bari waaye mboolem natt yooyu rekk mu taxaw ca taxawaay yu rafet taxaw ca taxawaay yi nga xam ne ab jaam moom la war a taxawee ci kanamu boroomam di ab sangam suñ boroom xool loolu ba gis ko ci moom xam ne gërëm na yàlla ci taxawaay yépp jaar naa ak moom ci mbir yu doy waar waaye fenn fu ci nekk rekk wéeru na ci boroomam te itam gërëm na boroomam loolu moo indi sun boroom di ñu nettali ci alquran wa isibtala ibrahima rabbuhu bi kalimaatin fa atammahunna sun boroom nattu na ibrahima ci ay mbir yu bari yu bokkut waaye yépp rekk mu taxaw ca taxawaay bu mat bu rafet tax mu mujj mat imaam ci ñépp doon roy teefu ñépp ba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sax sun boroom daf ko royloo sun maam ibrahim wattabi millata ibrahima anifan moo tax suñu borom nekkoon inni jaa'iluka linnaasi imaaman ndax mat nga ko def naa la nga nekk njiit nga nekk imaam nekk njiit ci nit ñi nga doon roy teefu ñépp natt yooyu suñ boroom doon jaar ak moom mën nga cee lim lu mel ne sànni ga nga xam ne doon nañ ko ko sànni ci sawara wa foofu fu mu gërëm yàlla la ndax bañ ko nammee sànni ci sawara wa mënoon naa ñaan yàlla bari na lool yonent yoo xam ne ba ñu tollee ci ay xat-xat dañoo ñaan seen boroom mu wallu leen bari na lool nit yàlla yoo xam ne ñoom it ba ñu tollee ci ay xat-xat dañoo ñaan seen boroom ngir mu wallu leen waaye li muy toll toll ci diggante bu doy waar boobu te xam na ne xaritub suñ boroom la ndax yàlla nee na man maa ko def muy sama xarit te xam nañ diggante nit ak xaritam rawatina kon diggante yàlla akub xaritam wattaxasallahu ibrahima xalila yàlla nee na moom moo jàppal boppam xarit ci digganteem ak sun maam ibrahima kon laa shakk ci ne bu ñaanoon yàlla rek sun borom wallu ko waaye taxul mu ñaan yàlla ba nañu ko tege ca mbaq ga di ko sànni ci biir sawara wa da nga dégg yenn nettalikat yi sax wax ne malaayika dab na ko ci diggante boobu ngir ne ko ñaanal sa boroom yu xettali la waaye lam ko wax mooy xam gi yàlla xam sama situation xam fi ma toll loolu doy na walis ma di ko ñaan ndax diggante bi ma toll nii du kumpaam te gërëm lu na it lépp loo xam ne yàlla dogal na ko ci moom waaye nga gis suñ boroom nekk xarib nekk ku jegeñ ba tax na diggante boobu la muy gàtt gàtt loruwu fa xul na yaa naaru kuuni bardan wa salaaman suñ boroom daa daldi seral sawara wa nga xam ne tàbbal nañu ko ca biir waaye loruwu ca lëkku ca néewut yàlla musal ma déedéet moom gërëm lu woon na lépp lu yàlla dogal ci moom waaye nag suñ boroom ci boppam moom moo ko musal foofu nag duma fi tollu mukk te sama xel du daj ñun tam suñu sëriñ suñu jàmbaar jooju di Cheikh Ahmadou Bamba digganteem ak tubaab yi ci julli googu nga xam ne moo ko taxoon a julli ci géej gi ndax moom it ba muy wàcc ca ndox ma ngir julli xamutoon dina lab wala du lab waaye xam na ne rek war naa def ndigalul boroomam te géej gi itam jaamam yàlla la boo xam ne su fekkee daa am ndigal ci yàlla ngir labal ko du ko xañ jëmmam nga xam ne xamul koy lab la wala du koy lab waaye nag moom na def rek li ko yàlla sant te it lépp lu yàlla dogal ci moom gërëm lu na ko waaye gis nga la am waxuma sax muy lab wala muy tooy waaye sujjut sax ba mu ko defee doon tekk cim ndox la sëgg itam ba mu siggee jëxam suuf moo ca taq te foofa du lenn lu dul suñu boroom kenn jaaru fa ku dul yàlla yàlla rekk la nga gis kon suñ maam ibrahim xalilullah noonu ko yàlla jarale jëmmam jaral ko ñàkk bakkanam te kenn ku ne xam na ne nit ni mu bëggee dund ndax lépp lu muy am ci kaw suuf baa mu koy def ginnaaw bu dundee lay doon kon nit ku yittewoo dund la ci kaw suuf waaye nga gis dundam googu ni ko ko suñ borom jarale ngir mu ñàkk ko nii boo xoolee itam diggante nit ak alalam nga xam ne dañ naan la alal lu bari ci doomu aadama yi ci seen xol ci lay nekk waaye nga gis ni mu tabee woon ba booy jàngale tab baa ngay misaal doo ko mën a ñàkk jël exemple nga xam ne boo xoolee bi ko malaayika yooyu dikkalee waroon a jàll ci nit yonent yàlla loot yi ngir alal leen bin jaarsee ci moom te yore melekaanu ay nit ndaka ñu toog rek lam njëkk a def mooy indil leen ay bernde fama labisa an jaa bi ajlin xaniis doonoon ku tabe koo xam ne saa bu masaan bëgg a jëfandiku ci aw ñamam wax nañ ne xibla bu ne dana fa dox lu sori ngir bëgg gis kum bokkal nga xam ne ni mu tabe woon ci jëmmam ba yàlla jaral ko ñàkk bakkanam noonu itam ne la tabe woon ci am am léppam mu bokk ko ñépp ba tey itam nga xool diggante nit ak doomam kenn ku ne ni muy bëggale li nga xam ne mooy njabootam doomi boppam sun borom subhanahu wa taala jox ko ndigal ci mu rey ko mu nangoo taxaw jëfe ndigal loolu ngir def la ko yàlla sant ci moom kon da ngay gis ne moom yàlla jébbaloon na ko léppam muy doomam muy alalam muy jëmmam loolu ñaare soo ko waxee rek sa xel sar jàllaat ci Cheikh Ahmadou Bamba noonu mu waxee naan dammi wa ahli wa awlaadi nga xam ne moom itam jëmmam ak alalam ak njabootam ak lépp noonu la ko jébbale yàlla ak yonent bi ñoom dañoo nuroo lu bari ci ay mbir waaye nga xool kon sun maam Ibrahima noonu mu nangoo dogalub yàlla ci jëmmam nangu ko ci njabootam nangu ko ci alalam loolu moo ko taxoon a mat mat gu tax sun borom ni ko def naa la nga nekk imaam nga nekk royteef ci mboolem doomu aadama yépp kooku nag mooy ki nga xam ne moo xëyoon bis rek sun boroom subhaanahu wa taala feeñu ko ci géntam digal ko ne ko mu rendi ki nga xam ne mooy doomam di Ismaayil nga xam ne loolu dara gënu koo doy waar dara gënut a tiis sa doom nga xëy rek sa boroom ne la nanga ko rey ak ku xam Ibrahim fa mu tolloon ci ay at dooro am njaboot demoon na ba mage lool te amutoon njaboot ba ginnaaw bi ci la saarata digale woon Ibrahim mu takk jaamam boobu di hajara bi yàlla dogalee mu jël hajara def ko mu nekk soxnaam diir bu gàtt yàlla def mu mel ne am na lum yëkk mel ne sun boroom mi ngi waajal ci moom njaboot diggante boobu lenn ci nettalikat yi dañ naan saarata xaw na caa am bu ko wàcce woon ba ci nit ku woyof kooku mën a nattaleel nga ne kon dafa meloon ni ku fiir ci loolu waaye nag moom it suñ boroom dalal xelam ci diggante boobu wax nañ ne ci la suñ boroom yebale woon sax malaayika yooyu ñu doon dem ngir alak nit loot yi te joxoon leen digal na leen na ngeen jaar ci Ibrahim ngeen bégal soxnaam si ak moom ci boppam ci ne danañ ko may itam doom jeneen doom joo xam ne Isxaaqa lay doon te ginnaaw Isxaaqa it danañu ko may Yaaqub maanaam danañ ko may doom ju tudd Isxaaqa ak Yaaqub ndax Isxaaqa moom moo jur Yaaqub Yaaqub boobu ci la yahud yi bàyyi ko moo tax ñu wax ne moo tax ñuy wax ne ci la sun sunu borom subhanahu wa taala doon waxee malaayika yi nañu fa jàdde ak nañu ko joxe xibaar boobu fa basharnaaha bi isxaaqa te it wa min warai isxaaqa yaqub qaalat yaa waylata ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيقا إن هذا لشيء عجيب waaye nag ñu ne ko atajabiina min amrillah rahmatullahi wa barakaatuhu alaykum ak lu mën a xew ahlal beyti innahu amidun majid nga xam ne am nañu nettali wax ne diggante Ismaayil ak Isxaaqa ñetti at ñoo dox ci diggante am na it ñu indi yeneen nettali yu bokkut ak yooyu xissa Ibrahima foofu bari na ay wuute ci gàttal ngir indi li ma tax a jóg rek mooy kon soxna Haajara mooy ki nga xam ne moo jur Ismaayil alayhi salaatu wasalaam saarata nag moo jur ki nga xam ne mooy Isxaaq ñett lii sax ñaare da nga bari ñooy gis ñoo xam ne dañ naan Isxaaq mooy ki ñu rendi woon loolu nag ñaar la ci ëpp ñett lii faral di bàyyi ko ci bannu Israël ñoo ko daan wax ndax gis nañ ne Isxaqa moom mooy seen maam ndax moo jur Yaqub bi nga xam ne moo leen meññ moo tax daraja ju toll noonu seen maam lañ koy gën a yéene ñaarale ëpp ci seen nettali dañoo baril di saxal ne Isxaqa la woon waaye mel na ne wax ji gën a wër mooy Ismaayil la woon Ismaayil nag mooy maami arab yi Ismaayil moom nga xam ne Ibrahima di waajuram dafa xëy rek suñ borom ne ko na nga ko rey mu am ngëm yàlla gu toll ne nangoo taxaw ngir rey doomam waaye nga xool doom ji moom ban taxawaay la am moom itam biñ ko joxee xibaar boobu ndax lam wax mooy rek yaa bunayya inni ara fil manaami anni asbaxuka léegi nag fansur ma saatara man daal gis naa ci samay nelaw ne dama laa war a rey ndax yonent yu bari suñu borom daf leen daan jaare ci ilham itam nga xam ne ci seen biir nelaw suñu borom daf leen ciy digal baa mu tere leen baa mu xamal leen ci ay mbir baa mu wan leen ci ay mbir xam ne ne loolu amrun ilahi la maanaam lu bàyyi ko ci suñu borom la moo ko jox ndigal ci mu rendi doomam jooju di Ismaayil waaye moom it ni mu ko ko waxee maanaam da ngay gis ne forcé wu ko da ngay gis ne daf ko gaaraal nekk ne ko suñu borom daal lii la wax yow nag léegi xoolal lu ciy sa xalaat fanzur ma sa tara ana lan moo ci sa gis-gis ana lu mu wax yaa abbati ifal ma tuumar defal rek li nga xam ne moom la la sa borom digal man sa tajiduni insha allahu min assabirin man danga ma fekk may ku muñ ku nangu dogalub yàlla defal li nga xam ne moom la la sa borom digal te xam ne man kuy muñ lay doon defe naa jamono yi ku xëyoon rek wax sa doom lu mel noonu ne ko dama am ndigal ci rey la yaakaar naa ne moom moo lay njëkk a rey sa doom ci boppam mooy profité moom rey la dem def déclaré wane ne danga wérut waaye xëy rek ne sa doom daal dama am naa ndigal ci yàlla ngir rey la mu taxaw wax ne nangu naa dogalub yàlla defal li la sa borom sant ci man sa tajudi insha allah mina saabirin dag ma fekk may ku muñ loolu loolu loolu lu yéemoo yéemu la nga xool yaayam moom it nan la def muy xaajara ci boppam moom it doon ku nangu dogalub suñu boroom nga xam ne dogal bi wàcc dangay gis ne ñoom ñett ñëpp ñoo ànd ci loolu kenn ku ne taxawaay bu am solo la taxaw ndax yaay it bu nanguwutoon ko rey doomam rey ko dana jafe waaye yow mi yàlla ne reyal sa doom nga nangu koo rey jëmmi ki ñu war a rey nangoo dee yaayam nangu mu dee loolu daanaka rek amatul néew na lool ñu taxaw ci pas-pas yooyu bàyyil xel ne tabaski lii la woon lii moo nekkoon cosaanul tabaski ak dee la woon guy xonq cur di jalaal ji doy waar waaye sun boroom soppi ko jamaal soppi ko mbégte soppi ko teraanga soppi ko ay bernde lan moo waral loolu jalaal jooju lu ko soppi jamaal sawara woowu lu ko soppi galaas tàngoor woowu lu ko soppi ab sedd loolu lan la naqar woowu lu ko soppi mbégte loolu lan la nangu dogalub sun boroom nangu dogalub sun boroom subhanahu wa taala mooy li nga xam ne moo wëlbati jalaal ji def ko muy jamaal xaaj bu njëkk bi dañ koy yemale foofu dellusiwaat ak yéen ci tomb ñaareel bi gën a leeral dëgg-dëgg lan moo wëlbati jalaal jooju ba def ko muy jamaal ak ban gis-gis lañ ca waraam kon incha allahu taala ñu ngi ci dellusiwaat ak yéen